muy Abdoulaye Wade donc ñun ñëpp kontaan nañu président gàcce ngaalaama ci yow donc c'est le Sénégal qui gagne tey gis nga artistes yëpp daje nañu fi jàmm bi kaf bi foo ree bi tey c'est la fête et Macky Sall encore une fois jaaraama merci beaucoup. alors boo gisee tey comme ko ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay walaay xuloo sax musul am peut-être showbiz bi la rek mais ça montre que ñëpp ñoo bokk ak baay ñii jiitu jiitu nañ ñi tegu ci seen ginnaaw tegu ci ñi nekk ci ginnaaw nekk ci ginnaaw donc aa ngi gis suñu papa Souleymane a ngi noonu di def bu paree maa ngi war a yëg bu ma paree ñoom Bastoum Ibro ñëpp ngi war a def donc aujourd'hui c'est le Sénégal ci gagne ah, waaw waaw ngi leen di waajal album bu garaaw mais tamit waa Paris nañu ma xaar ndax maa ngi fa war a ñëw incha allah benn date bu big incha allah. mais Sidi gars yi lañu gis temps yii yëpp yëpp ñooy commencé di di arena gars yi sax bàyyi nañ fu mu waaw ñu ngi ci suñu ruq di liggéey rek lépp lu jot rek dina yomb incha mais Sénégal mën nañ xaar nga dem arena comme yeneen artistes ñu koy defee. mais déggoo ma ne la lépp lu jot rek dina yomb pour l' instant euh, pare guñu pour pour def arena ñu ngi ci suñu ruq di liggéey suñu album mais. Euh, lu ñuy rêvé ñaan nañu yàlla bis ñëw ñu yóbbu drapeau Sénégal Furaw Arena yàlla moo koy maye te benn buur moo am mooy may ñëpp yàlla ñu ko may mais aussi yàlla bu mu yem ci man yàlla na ko may képp kuy yor micro di woy la ko suñu borom defal. album kañ la ko mën a xaar. dinañ nañ ko xaar ci deux mille vingt deux bi incha allah. est mooy am si album yan yan moo si am parce que tamit. bu ma ko waxee peut-être dootul amati sens. mais y aura de surprises incha allah. est que est-ce si am ay duo am ah, bien sûr am na ci sax pourquoi pas da ci am am na ci bu baax a baax non mënu ma ko wax nag ce sera euh, day day day doon lu ñu may sànni mais surprise la dama bëgg mu nekk surprise. surprise bu Sénégal yi gën a bëgg mooy tey jii nii Sidy ak Wally Seck bekk benn benn son est loolu mën nañ ko xaar. mais bien sûr bien sûr ah du ñu noonu nag ah mën nañ ko xaar nañ xaar lu dàq loolu ci kàttanu yàlla mën nañ xaar Sidy ak Pape Diouf mën nañ xaar Sidy ak sama papa Youssou Ndour waree ba mën na nekk Sidy ak Momo Tarba El Hadj Ibro mën nañu xaar ñëpp parce que Sidy Sidy Sénégal la te ñoom ñëpp sama ay nawle artiste lañu Siri ak ak ak ak ak Sénégal yu lan naan lu tax ñu neex Siri Diop parce que Siri Diop topp si ginnaaw kenn à chaque fois kenn bu defee dara moom day bëgg def kii bëgg day bëgg à chaque fois concurrence loolu mooy avancé musique sénégalaise est-ce nga ko gisee. waaw mais loolu yëpp dañuy liggéey rek donc comme que tey dañoo ñëw ci inauguration bi je préfère bien que ñu wax ci inauguration bi ak Sall Ngaari Lam Toor Bourguédé lu rafet lii mu ñu defal donc je préfère bien wax ci cadeau bi cadeau bi moo ëpp moo ëpp moo ëpp ndaxte lu ñu doon rêvé la stade bu baax boo xam ne suñu naw la yeneen dëkk yi bu ñu fi kontaan te j'espère que tey ku fi rek sa xol seet na tu as vu ni stade bi mel ci doomu aadama donc sénégalais lii lañ doon rêvé am nañu ko gàcce ngalaama Macky Sall mais sénégalais yu bëri la mooy naqari mooy mu la goos à chaque fois bu waa Seck bi mu ne jàpp ne waa Seck Sidi Diop lay waxal peut être da koy sous-estimé tey ñu ngi ci inauguration bi parlons un non ñu ngi ñu ngi wax ci immigration bi <laughs> waaw. merci beaucoup merci beaucoup moom. sa sant bi rafet na merci.